est-ce que nekkul temps amul ku lay assist amoo assistante bu jigéen. non non non. maj. ah mais ñi mais ñebe ji. man maa koy togg. ah macha allah nag bu kaar laf cat. kaar nag keroog dama ci laa xëdd de. ah bon mais nag ndaka hmm, ñebe kat du ko xëddee kon nag mbaj mbaj di doom bu day fayu doom bu ne gën ji man dama ma dafa am lu lu sama xel quoi. mooy la fois passée bi ñu ñëwee. après man dem naa wax ak Baye. Baye yaa ngi tane. yee ma jomba yee maa ngi tane kay. sant nañu toog benn métit. non non ak doo loxo mu ngi bousee. yee kay. waaw Baye lu ma jaaxal mooy. ma hmm. a def jëf yu ñaaw naa booy la rek. yee li may rob moom la ñu soxoree concurrence bi. yee loolu. léegi Lëz Lëz. Lëz moo yóbbu daal. Hmm. yee kon centre nga centre benn métit daal centre nga tane bu baax. tomorrow inshallah yeah I'm coming job yeah xanaa nga xëy si ndama gi may nees gën a neex ngeen ma yaa yaa ma ni te lii mu ma wax mhm. ak li mu ma njëkkoon wax dafa wute am différence quoi bu bari xam nga yaa ma ko doon wax naan ma teyel nga xool bi nga demee si laa xalaat xalaataat dem seeti ko mm, mais gis naa ne daal sama xel li muy xalaat du ko bàyyi mm. maa ngi nii fu ñuy mujj ndox dafa am. muy nii ko bàyyi. benn rek. jaay ndàmbe kenn ko woy baax. bàyyi dafa bëgg nga man. Hmm. lan bëgg nga duggal ma ci koñ bi. waaw nga xoolal ma porte ma. ma lan moo xew man ba sama xaalis dem. ma nekk sa détective quoi. waaw parce que xam naa ne bàyyi tànk yi mu jël. Hmm. daf maa nar a ndenge te yow am nga connaissance. waaw waxuma ngay jàkkaaru nit àqamti ko siiju ba mu xam ne am na loo ko bëgg a wax. waaw dugal nga xoolal ma moo xew loolu laa bëgg a xam. voilà <laughs> nga génn sama wóor Jackson boo wóor ngay am fii. Jackson Boer waaw gis man geeru ma geeraanu ma Jack moo am Jackson Boer amul fenn. Jack lan <laughs> mais déglu ma rek bul jël affaire bi nga ngandal ko ba mu ngand. Hmm. ba ñëpp xam ne am na lu xew. Hmm. bul jàkkaarloo ni tamit tàqamti ko siicu ak a ngir yàlla defal ma vérifier ma lu xew ci koñ bi ak man sama xaalis fan la dugg nga indil ma information. lu kese laa soxla soxla ma leneen. ah ba nga noppee nga déglu ma moo takk samay verre mën a waxtaanee parce que fu ne nii maa dugg ci sujet bi ma jambal. jaañ tàqameeg siitu yooyu yëpp daa bokk ci détective parce que dañ la koy jàngal dafa nekk ci code pénal kooku maîtriser woo ko maa ko maîtriser j'ai voyagé pour ma dugg ci koñ bi lël ma ci bàyyi teetuwaal lu mu def ba nu récupérer xaalis boobu noonu fa may siitu di tàqame di tàqamtiku di sarme waatee parce que dafa bokk ci liggéeyu détective privé yow xam la moo la ñor nu mu def ba xaalis bi dem loolu rek moo la ñor yow. kese moo la ñor loolu kese kon laisse-moi faire à ma manière. naa ko sa en tout cas bu mu fi indi problème. non bu doo ko rëccu doo ko rëccu doo ko doo ko rëccu mun naa dem ah. Jackson Boor ngay am fii pël. nationalité sénégalais enquête bi naa commencé waa koñ bi dañ ma xaar ay yaa char ni nga ma defalee ma <laughs> ko jàppee dara barab bu wër xam naa ne sama